agence immobilière diaspora sopp na bi moo lay may sa ak actualité du jour di la wax ak foo mën a nekk ci Sénégal bëgg kër wala nga am parcelle bëgg ku la ko tabaxal wala sax sa doole matul nga bëgg ku la lebal ay parcelle nga di ko fay ndànk par ndànk mën nga ko contacter numéro yi ngay am noonu agence immobilière diaspora sopp na bi Nabi Boutique moo lay may sa ak actualité du jour di la wax yow mi bëgg ay produits aloe vera en qualité mën nga ko contacter numéro yi ngay am noonu ci écran bi. kañ la coowal coup d'état di jeex ci continent Afrique mooy question bi monde entier di posé ginnaaw Burkina Faso ak Mali cette fois si réewum Niger moo jot wàllam. mu nekk benn tiitaange ak njàqare bu jéggi dayo boo xam ne ci guddi yi ñu nii askan ba ñu ngi koy dund seen président bii nii di Mohamed Bazoum dañ koo tëj fi nga xamante ne moo di résidence officielle am question bi ñu war a répondre nag mooy dëgg-dëgg ana ñan ñoo amal coup d'état ci réew ma président bi ci jamono ji yan condition lay dund est-ce que dañ koy buntu xatal wala mi ngi si jàmm ban réaction moo am ci monde bi mu nekk ay question yoo xamante ne moom lañ leen war a càmbare léegi-léegi incha allahu taala ci sa actualité du jour dama naan la njoo ko yong ngiro po wala sax ma ne la mbaldo dafay dépendre rek ci waxtu wi nga xamante ne moom ngay seetaan vidéo bi démb nag defoon nañ vidéo expliqué leen histoire bi ak li nga xamante ne moo fa am dëgg-dëgg mais da cee am benn erreur boo xamante ne dañ ñu ko signale moo waral ñu retirer vidéo bi defaat ko incha allahu taala ñu ngi leen ko jégalu pour ngeen gën a comprendre nag dëgg-dëgg histoire ko d'état ci réew mi di Niger faaw ñu arrière ba ci atu 1960 mu tombee ak at bi nga xamante ne moom la Niger am lii nii di indépendance wax nañ nag ne lii ce n'est pas la première fois ñu ko fay gis. mais c' est la quatrième fois coup di am ci réew ma coup d' ba fa njëkk am wax nañu mi ngi fi amoon ci atum 1974 ak président bi doon wuyoo ci turu Joori Hamani beneen bi fa amaat récemment ci atum 2010 la ñu renversé woon fa président bi doon wuyoo ci turu mamadu Tandja sans aussi ma compter yeneen coup d' yi nga xamante ne amal nañ ko ci réew ma mais mu mujj échec bu ñu arriéré le 31 mars ci atum 2021 am na ci ñoo xamante ni gouvernement bi daf leen arrêté woon li ko waraloon mooy dañ doon fexe ay coup d'état ngir teg ko ci président bii nii di Mohamed baasum li ci gën a yéeme nag mooy deux jours avant muy def prestation de serment gannaaw bañ ko falee ci lañ doon jéem a fexe ngir daaneel ko ba tey itamit wax nañ ne ci weeru avril ci atum 2022 benn waay buy wéy ci tur Ousmane Cissé mu nekkoon ancien ministre nigérien de l'intérieur wax nañ ne daf doon def ay pexe ngir amal fa benn coup d'état mais nag coup boobu noonu dafa mujj échec. ba tey itamit xam naa ne sax mu tombé ak fi nga xamante ne foofu la ñuy bàyyi histoire coup d'état ñëw ci li am dëgg-dëgg ci réewum Niger mooy wax nañ ne ci weeru janvier ci atum 2018 am na ci neuf militaires ak benn civil boo xamante ne condamné nañ leen ci lu toll ci juróom jàpp fukki at ak juróom de prison. li nga xamante ne moo ko waral nag mooy dañoo wax ne dañ doon fexe ay coup d'état jëmale ko ci ex président bi nga xamante ne moo doon wuyo ci turu Mouhamadou Youssouf Mouhamadou Youssouf moomu noonu mooy ki nga xamante ne moom la Mouhamad Bassoum wuutu ci bopp nguur ga bu ñu dellusee ci sujet bi nag dëgg-dëgg ana lan moo xew ci réewum Niger pour ma gën koo simplifier nag mercredi le 26 juillet dafa am ay soldaa yu dem ci télévision nationale bi wax ne président bii nii Mouhamad Bassoum renversé nañ ko fii nag faaw ñu def benn taxaw seetlu parce que président bi ñi ngi ko fal démocratiquement ci atum 2021 maanaam askan bi ñoo dem ca mbañ gàcce ya daal di koy fal mais nag dëgg-dëgg ana lan moo waral ñu coup d'état ko explication yi nga xamante ne ñi amal jëf ji nag ñoo ko wax wax nañ ne bi ci njëkk mooy problème de sécurité bi nga xamante ne mi ngi leen di la jël rawatina jihadistes yi nga xamante ne ñi ngi leen di sonal guddi ak bëccëg beneen bi nga xamante ne moo ci topp aussi mooy situation économique et sociale bi wax nañ ne dafa sooxe lool lii mooy liñ teg ci table bi wax ne moo waral ñu coup d'état ki nga xamante ne moo di Mohamed baasum mais nag dëgg-dëgg ana ñan ñoo amal coup bi police la wala gendarmerie wala soldat cette fois-ci nag ñi amal coup d'état bi mooy ñi yor garde présidentielle bi maanaam ñi nga xamante ne ñoo war a wattu war aar njiitu réew mi ñoom ñoo ko coup d'état mais nag ci jamono ji président bi ci yan condition lay dund est-ce que dañ koo sonal wala mi ngi ci jàmm bu fekkee nag précision yi nga xamante ne ñi ngi ko joxe wax nañ ne président bi ak famille ñi ngi ci jàmm dara jotu leen ba tax sax am na ñu wax ni am na ay waxtaan yoo xamante ne mi ngi dox ci diggante ñi amal coup d'état bi ak président bi mais nag dëgg-dëgg yan condition lañ teg ngir waxtaane ko mën naa wax ne xamaguñ ko fii nag faaw ma gën a préciser que ne ñi nga xamante ne ñoo amal coup d'état bi police ak gendarmerie ñoom ñëpp dañoo collaboré wu ci jëf jooju noonu cest à ngir renverser ki nga xamante ne moo di Mouhamed Bassoum mais nag dëgg-dëgg ana loolu mooy situation ba ci réew ma liñ fa mën a jàppandi mooy li nga xamante ne moo di constitution ba ci jamono ji validité am dañ ko dagg beneen bi nga xamante ne moo ci topp aussi mooy bépp liggéey ak bépp activité boo xamante ne gouvernement bi mu ngi ko doon amal aussi dagg nañ ko rax ci doolu aussi frontières yi tëj nañ ko kenn du dem kenn du dikk ñu décrété fa li nga xamante ne moo di état d'urgence boo xamante ne dafa war a commencé vingt deux heures ba cinq heures du matin mu nekk ay kaddu yoo xamante ne colonel major Amadou Abdourahmane moo ko yëkkati. ginnaaw bi li amee aussi am na ay réaction yu bari yoo xamante ne gis nañ ko ci monde bi ñu commencé ko ci président Sénégal muy monsieur Macky Sall ñaawlu na coup d'état bi am ci réew Niger en même temps aussi États-Unis d'Amérique France CEDEAO même union africain aussi ñoom ñëpp ñi ngi taxaw di ñaawlu li nga xamante ne moo am ci réewum Niger ba tax sax na jamono ji mën naa wax ne njiitu réew Afrique yu bari ñi ngi ci réew mi nga xamante ne moo di réew Vladimir Vladimirovich Poutine muy Russie mais loolu nag teewut CEDEAO ak Union africain ñi ngi amal benn waxtaan boo xamante ne bu urgent la ngir jëmale ko ci li nga xamante ne moo di coup bi am ci réewum Niger dans ce nag mën nañoo passer directement ci voix off bi ñu dellu siwaat léegi-léegi incha allah voix off bi wala actualité du monde dañ koy tàmbalee ci sommet bi nga xamante ne mooy dox ci diggante Russie ak réew yu baree bari ci Afrique mu war a am exactement ci fi nga xamante ne moo di Saint-Pétersbourg ci bésub tey bi muy alxames le président russe muy Vladimir Vladimirovitch Poutine dina daral njiitu réew yu bari ak ay délégation yu bari yoo xam ne dañuy bàyyi ko ci kembaaruk Afrique war koo fekk si ci réewum bi nga xamante ne moo di Russie ñu war a waxtaane ci wàllum économie politique naka lañ koy gën a mën a renforcer ci lëkkaloo yi nga xamante ne dafay dox ci diggante Russie ak yeneen réew yi nga xamante ne ñoo féete ci kembaaruk Afrique ni nga xamante ne noonu la ko Vladimir Poutine tudde nag mooy dafa nekk benn effort boo xamante ne li ci jiitu mooy jàmm beneen bi ci topp aussi mooy suqaliku beneen bi nga xamante ne mooy ci toppaat aussi mooy am ak ëllëg goo xamante ne ëllëg bu mucc ayib lay doon ci kenn ku nekk ci ñun maanaam ci réew mi nga xamante ne moo di Russie ak yeneen réew yi nga xamante ne seeni njiit ñoo koy fekk si te ñu bàyyi ko ci kembaaruk Afrique ba tey itamit bu fekkee ne jël nañ ci précision yi nga xamante ne moom la Moscou fësal Moscou nag ma fàttali ko mooy capitalu réew mi nga xamante ne moo di Russie wax nañ ne lu toll ci 49 réew accepté nañ ne dinañ fekk si Vladimir Poutine ngir ñu war a waxtaan ci deuxième édition bi nga xamante ne moo war a am première édition bi nag mi ngi amoon ci atum 2019 ci fi nga xamante ne moo di Sotki bii nag mooy ñaareelu yoon réew mi di Russie war a daje ak réew yi nekk ci kembaaruk Afrique gannaaw Grèce ak Algérie Italie moo jot wàllam ci daay yi nga xamante ni ñu ngi koy gis muy tàkk fu bëree bëri ci adduna bi ñu wax ne daay ba fa tàkk nag jur na jëye ju rëy rëy ci itali parce que ci fan yi nga xamante ne moo jiitu ci nord bi ñi ngi fa doon sentir ak tàngoor goo xamante ne bu leen lëjal la ci sud bi nag exactement wax nañ ne foofu la daay ba amee ñu wax ne lu toll ci ñeenti doomu aadama ñàkk nañ ci seen bakkan ba tey itamit am na ci 2000 personnes yoo xamante ne mën naa wax ne évacué nañ leen ca makkaane ngir rawale leen ci jamono ji nag safara sa jaaxal na lool ñi nga xamante ne ñoo di sàpp sapeur pompier yi ak ñi taxaw ngir fay boobu noonu musiba ay immigré ñooy woote wàllu dañ leen sànni ci diggante Libye ak Tunisie ñi nga xamante ne ñoo def jëf jooju nag mooy waa réewum Tunisie ci boppam parce que fan yi ñu jiitu ñi ngi fi doon dégg benn coow boo xamante ne moo amoon ci benn tunisien bañ fa rayoon ginnaaw loolu nag mën nañoo wax ne ñi ngi jàpp ay immigré yoo xamante ne dañoo bàyyikoo ci zone subsaharien bi di leen sànni ci frontière bi nga xamant ne moo dox ci diggante Libye bi nga di Louga ba lu toll ci vingt quatre personnes ñàkk fa seen bakkan exactement nag lan moo xew ak ana lan moo waral boobu noonu accident bu ñu jëlee ci témoignage yi nga xamante ne ñi ngi ko taataane ci seen bi nga xamante ne moo di Seneweb wax nañ ne oto bi nga xamante ne moo def accident daf doon daw ci vitesse yoo xamante ne mën naa ne yu extrême la bi loolu amee dafa glissé bi mu glissé mu fekk benn garab daal di koy mbëkk bokk na ci ñaari yi nga xamante ne moom lañ wax ne moo waral accident bi nag bi ci njëkk mooy oto bi dafa surchargé parce que wax nañ ne soixante personnes la waroon ci yoon waaye dafa ëppal jël ci lu toll ci 76 personnes beneen bi nga xamante ne moo ci topp aussi ñu wax ne yoon bi nga xamante ne foofu lañ jaaro nekkutoon yoon bu baax c'est-à-dire qualité bi nga xamante ne moom la yoon bi waroon am amu ko ñaar yooyu bokk na ci li nga xamante ne moom lañ wax ne moo waral boobu noonu jëya ba tey itamit bu fekkee jël na ci précision yi nga xamante ne moo tukkee ci le ministre des infrastructures et des transports terrestres et du désenclavement muy wuyoo ci turu Mansour Faye wax na ne oto bii kay fi ñu ko waroon a yóbbu sax mooy feeraay parce que condition yi nga xamante ne moom lay dawee dëppoowut ak yoon rax ci loolu aussi wax na ne oto bi dafa waroon a def li nga xamante ne moo di visite technique mais nag bokk na ci précision yi nga xamante ne jox nañ ko wax nañ ne bi xamante ne loolu am na vingt deux personnes dañoo faatu ci saa si te ci vingt deux yooyu wax nañ ak santé bi ci lañ bokk yeneen yi nga xamante ne ñoo ci topp maanaam yeneen ñaar nit yi nga xamante ne ñoo wax nañ ne ci moment bi nga xamante ne ci lañ leen di secourir wax nañ ne tembare ci jamono jooju ci la ñu faatu ñu war koo tëjee ci màggal gu sell gi nga xamante ne moom lañ gën a miine ci turu màggal daaru xuddoos jàpp nañ ko célébration bi mooy le 6 août bi nga xamante ne moo nekk ci sunu kanam mu nekk màggal goo xamante ne nag dañ koo jagleel jëmm ju tedd jii nii di Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul mu gane woon àdduna ci atum 1853 wuy ji boromam ca njaareem ci atum 1927. lii mooy li ñu leen andiloon tey ci seen actualité du jour actualité bi sax je pense que ne pour démb la waroon a doon mais nag comme que dañuy bañ a loolu moo waral ñu reprendre ko incha allahu taala di leen wax nag mën ngeen ñoo xaar léegi léegi ci kanam à partir de vingt heures ñu andi leen beneen bu bees. kon bu leen déconnecté maa ngi leen di jox rendez-vous léegi léegi vingt heures incha allah ci beneen actualité bu soobee yàlla kon gars yi ci kanam.